Al Hassane Hanne maa ngi lay nuyu maa ngi lay voilà nga nekk expert aéronautique euh, tey jii ñuy waxtaanee crash euh, Sénégal Air euh, mbir mi nag mi ngi amoon ci 5 septembre 2015 pratiquement ci kon 5 septembre bile si la ñuy amal anniversaire u drame bi est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun ci drame bi naka la demee woon ba juróom ñaari nit pratiquement daal di ciy ñàkk seen bakkan. ni ñu ko waxee noonu euh, le 5 septembre 2015 benn euh, avion bu compagnie aérienne Sénégal Air euh, jóge woon Dakar dem Ouagadougou jëli benn tubaab benn française bu feebaroon donc avion bi SOS médecin moo ko affrété woon àndoon ak équipe médicale bu am ñetti nit ak benn équipage équipage bu am ñaari algérien ak benn congolais au total ñoom ñuy juróom-ñaari nit ñu jëli woon euh, euh, malade française bi fële Ouagadougou bi ñu ñibbisi nag bi ñu agsee ba ci booru Tambacounda ci kaw ci la ñu mbëkkanteeg beneen roplaan bu jóge woon Dakar doon dem Malabo alors euh, ci la plan bi Sénégal Air bi moom continuer ñëw ba ci géej gi ci au large de Dakar mu daanu foofu daanu réer alors bi mu réeree juróom-ñaari nit ñëpp ñàkk seen bakkan euh, ci lañ wër nañ ko nag euh, déclenché nañu plan euh, Orsec dem ay avion ay bateau yëpp daal di wër ci géej gi ay fani fan mënuñu ko gis alors ci la ñuy wëlbatiku nag ubbi benn enquête judiciaire enquête judiciaire boobu ak benn enquête technique enquête technique bi moo waroon a xool ba xam lan moo indi euh, jafe-jafe yooyu sur le plan technique ba catastrophe bi am enquête judiciaire bi nag mooy euh, xool ñan ñoo ci euh, laale woon ak naka lañ ci laalee donc bi amee man personnellement euh, du moment que euh, man maa nekkoon euh, en fait responsable technique foofu chef de maintenance compagnie bi 2011 laa fa ñëw ba 2013. alors directeur général bi nommé na nommé ma chef de maintenance ci laa nekkoon ci laa toog euh, ba gis ne euh, li fa xewoon musiba la. Mm-hmm. musiba la en ce sens que euh, compagnie boobu bu ngeen fàttalikoo 1995 amoon na benn roplaanam bu daan woon nga paru juróom ci fukki nit yi ci nekkoon ñàkk seen bakkan. mu nekkoon ay caaxaan booba man maa ngi armée de ñu ngi armée de l'air d'ailleurs ñaar ñi ci wee ñi ci gaañu woon sax ñun suñuy collègue la ñu woon armée de l'air ñu doon ñu daan dégg nag li fa xew caaxaan yu metti ñoo fa xewoon ba tax na man bi ma gisee yu mel noonu ci la wëlbatiku wax ak euh, directeur général bi di ko artu waaw di ko artu bi ma demee ba xam ne euh, mënuma ci dara ci laa dem autorité yi nga xam ne ñoom ñoo yore aviation civile ma dem waxtaan ak ñoom di leen euh, soññ ñoom tamit vraiment ñu jàpp ci mbir mi balaa catastrophe bi am alors léegi nag euh, bi ma demee gis lu ma jaaxal ci mbir mi mhm. man ma nekk euh, chef de maintenance nekk responsable technique su ma seetaanee ba catastrophe am ci samay loxo heure bi waroon na fekk ma nekk ci kaso bi mhm. ci laa xool roplaan bii nga xam ne moo daanu nii ba muy ñëw mille neuf cent deux mille douze ba mu ñëwee ba mu ko jëndee ba indi ko de ancien directeur général ADS Mbaye njaay ñëwoon na fa ba man ak moom ñu xool avion bi dugg ci biir visiter ko ba mu ko gisee moom ci boppam dafa newoon dafay jël avion boobu def ko à la disposition de la présidence de la république pour yenn déplacement yi ku mel ni man nag mënumaa saytu ba gis ne roplaan bi du roplaan boo xam ne nit sax war na cee dugg may walbatiku di seetaan ba yu mel noonu di am parce que moom mbay Ndiaye bu bëggee loolu tamit bu demee di ko présenter présidence de la république te ñu nëpp ko li ne ci biir ëllëg ci biir musiba mën na am man sama devoir moo nekkoon képp koo xam ne yaa ngi utiliser suñu espace aérien ñu te te sa bakken di di nekk en souffrance man ma ma, ma taxaw pour loolu bañ a am ah, parce que mbir mi dafa yomb aéroplane la ñu yore nit day ñëw fay xaalisam ñu transporter la roplaan dafay paan bu paanee dañ koy dépanner dépannage bi mi ngi si wékku rek ci ñun dañu liggéey mën nañ suñu liggéey ne nit ki jënd matériel bi mu war a jënd rek dégg nga bu ko defee ñun ñu dem euh, defar ko roplaan gi dem yoonam waaw loolu bu mënta am nag mais roplaan waratu mën a naaw foofu loolu nag moo taxoon ma def démarche yi bi ma demee ba télé gis na ci biir am na ci ay complicité ci laa jël initiative daal di def benn rapport circonstancié bi ma ko defee envoyé ko autorité yëpp ba ci président de la république pour xamal leen ne yéen laay embarqué ci ab ci ci roplaan yi compagnie bi nii ak nii ak nii la demee kaay leen ngeen saytu ko bu fekkee mën na jaarale mbir mi yoon ngeen bàyyi ko mu naaw bu mënta jaarale mbir mi yoon mais ngeen arrêté ko ñeneen ñëw jël place am yu mel noonu daal laa def keroog bi ma defee rapport bi le 17 avril 2013 euh, le 24 avril une semaine après directeur général bi daal di may licencier pour motif économique mënuloo jënd avion tey tey euh, moins de six mois après nga ne yow da am difficulté économique ci laa ko yóbbu tribunal tribunal daan ko pour mu fay ma sama émolument de ak samay dommages et sama sama euh, avocat dem jël décision boobu daal di koy jox huissier huissier dem di exécuter mu nëbb bagage yi ñu téye woon ñu woowaat ko foofu tribunal pour euh, tribunal correctionnel ci lañ ko jugé condamné ko à trois mois de prison avec sursis ba pare tegaat ko ay dommages intérêt xaalis boobu yëpp mu war ma fay tey mi ngi ci tëdd yàlla def mu génn àddina ay héritier mu war maa fay kenn nanguwu maa fay boole ko ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, autorité aviation civile yi du moment que man maa nekkoon euh, responsable technique dogu woon pour catastrophe bi bañ a am te dogu boobu xeex la xeex naa ci lu ma mën def naa rapport circonstance yeeg yooyu xëy na rapport boobu moo leen metti ba ñoom ci seen bopp ñu jël sama carrière plombé ko mënatuma liggéey fenn depuis 2013 mënuma liggéey joxe ay instruction fu ne pour buñ ma buñ ma jël fenn dégg te yu mel noonu seen dooleel la ñu yor sëf la ko mënoo ci dara sénégalais yi nag ñooy jugé ñooy apprécier nañu xam rek ne man borom kër la mhm. toog naa pendant de 2013 à deux 2022 waaw neuf ans yoo xam ne mënuma am salaire yor njaboot lépp lu ma amoon jaay naa ko xaalis euh, kër gi ma yoroon sax jaay naa ko ba tey ji ñu ñu forcé ma man may vivre sous location dégg nga tey ñu ñu yoreel ma sama xaalis tribunal war ma ko fay fay ñu ma ko di ma ko di ko traîner pourquoi ñu koy traîner ci fan yi néew nag dinaa jóg dinaa xeex li ma war a xeex pour samay droit yëpp ñu delloo ma ko organisme de défense des droits humains yi mm-hmm. ki euh, saisir naa leen ñoom ci seen bopp xool nañ ba xam ne injustice total moo moo am ci mbir mi am na ku ci bind sax président de la république pour que mu xool dossier bi delloo ma ci samay droit non seulement mu delloo ma ci samay droit mais à la limite même mu décorer ma parce que li ma def euh, bu doon beneen réew tey jii kenn waxatu ko mm-hmm. waaye nag mu am ay connexion yu ne ci biir ñu taxaw rek bëgg bëgg ma faagaagal bëgg faagaagal sama njaboot. waaw léegi mm. mm-hmm. sax. mu am problème problème. à plus borom kën pendant pendant neuf ci ay ci ci loo xam ne teguñu ko fenn. waaw mu am dossier euh, judiciaire euh, dossier judiciaire bi fan la toll euh, exactement. dossier judiciaire bi ni ma leen ko waxee keroog bi catastrophe bi amee. lañu hmm. ubbi enquête judiciaire képp ku ñu war a déglu déglu nañ la ñi ci so laale woon lépp dañ woon jël nañu ay inspecteur fu ne ñu ñëw enquête au niveau de l'aéroport man ci sama bopp ci personnage central la woon ci ci ci enquête bi parce que keroog bi accident bi amee président de la république ñoo ma ñoo ma woo sax na ma demal nga bokk ak président ak euh, commissaire de police bi ak commandant gendarmerie bi yéen ñett ngeen initier enquête judiciaire bi def nañu enquête pendant plus de quinze jours dégg nga def nañu ay procès verbaux ñu def benn rapport yóbbul ko procureur procureur euh, xëy na peut-être affaire yi traîné na ba parquet de Paris euh, euh, ñëw euh, transporté wu Dakar ba demandé leen ñoom ñu ñu ñu xool dossier bi biñ ko génnee ubbi information judiciaire bi ci la ñu inculpé ay nit nit ñooñu ñu inculpé tey jii ñu ngi devant la bar du tribunal man ci sama bopp du moment que man maa nekk personage central ci affaire boobu j'ai été cité comme témoin témoin boobu euh, le 10 novembre bi di ñëw euh, procès bi dinañ ko teniraat au niveau du tribunal correctionnel waaw am na euh, ñaar ñoo xam ne seeni borom kër faatu nañ ci roplaan gi ñooñu aussi euh, soxna yooyu ñëw nañ constitué wu parti civile ànd ak seeni avocat avocat yooyu ñëw nañu constitué wu et envisager même demander installer euh, état du Sénégal ci cause bi maanaam état du Sénégal ni ñëw wax moom naka la euh, taxawee ci mbir mi. tey jii euh, yow lan moo tax procès bi soxal la trop Alassane Hann lan moo tax kut ko kut nga bëgg lépp daal di leer ci dossier bu crash bu Sénégal Air bu 5 septembre 2015. Euh, soxna si dafa am yu bari yoo xam ne mi ngi xew ci senegal mi ngi xew ci réew mi. Hmm. te dara waralu ko lu dul euh, càggante ak euh, jubadi jàpp ma rek ne tey jii Sénégal toll na foo xam ne yu mel nii war na fee mën a am. en deux mille vingt deux am na yoo xam ne kenn waru ko tu ko sax mën a évoquer fi mu nekk nii bu ñu xoolee le mois de septembre mois bu bu bu doy waar ci ci Sénégal. bu ngeen xoolee le 11 septembre ñun ñëpp teewoon nañu 11 septembre euh, États-Unis ngeen xool le cinq septembre catastrophe aérienne bi nga xool le 26 septembre le bateau le Joola waxuma nag te jii le trente septembre nga xam ne euh, ay ay Samba Boy ay ay ay kilifa armée kilifa civil def seen complot ñu fekk ay ay famille yu yoo xam ne euh, defuñu leen dara ay jàmbaar yoo xam ne dañoo xeexal seen réew ñii dee ñi ñii làgg ñii euh, liggéey ba retraité ñu ñëw fekk leen ci euh, seen dëkkuwaay toroxal leen bëccëgu ndara kam ba tey ji mu nekk traumatisme boo xam ne weer wi passé rek suñu ñaari soxna pratiquement en l'espace de quinze jours génn nañ àddina muy traumatisme boo xam ne boobu ba léegi mi ngi leen topp ay borom kër yoo xam ne ñii ñi ngi AVC dégg nga ay famille yu disloqué ci loolu yëpp dara waralu ko lu dul euh, nekk yor koy saay-saay dégg nga jubadi euh, indi ay fen daal di koy teg ci ci kii bi def ko dëgg ba ba toroxal ay njaboot tey jii dossier boobu ma nga tribunal muy mois de septembre boo xam ne mois de catastrophe la léegi nag bu ma dellu see ci affaire euh, avion bi. aéronautique dafa lépp léppam dafa leer lu mel nii bu amee da ngeen a war a def enquête bi ni mu waree ñu xool li nga xam ne moo indi jéye ji buñ ko defee ba pare ñu daal di def ay recommandation recommandation yooyu fépp fu nit di liggéeyee ci avion dañu la koy xamal pour que li nga xam ne moo indi jéye ji bañ a amati su ngeen toogee nag defu leen ko li taxoon catastrophe boobu am mi ngi fi ba léegi képp kuy jël roplaan yaa ngi daw yaa ngi risqué lu mel noonu dégg te ñi nga xam ne ñoom ñoo ko sooxee ku ci nekk war nga am benn mesure euh, conservatoire boo xam ne moom la ñuy jël ci sa kaw waaye tey gis ngeen bi catastrophe bi amee dawal nañ ay ati at yoo xam ne kenn ci ñoom inquiété wu ñu continuer comme euh, comme il se devait ñooñu ñoo taxaw tey ci sama carrière du moment que man maa taxawoon ne man li ngi ngeen di def nii jubuwuma jubuwul benn doomu aadama ni ñaa ngi euh, risqué seeni bakkan ñu ñu xeex ma ci te samay kayit xaj ma liggéey topp ma te seen doole sëf ma ko ba tey ji mooy mooy vivre li nga xam ne moom laay vivre loolu lay xeex pour que bépp droit boo xam ne amel nañ ma ko nañ ma ko delloo te loolu kenn laa ci euh, dési euh, laa ci joxoñ tey jii muy président de la république nga xam ne man personnellement maa ko defal rapport circonstancié adressé ko adressé ko ko personnellement moom jot na ko xam na li xew bi catastrophe bi amee woote na cellule de crise wax nañ ko li xew yëpp ku mel ni man bu doon nitam tey jii woo na ko moom ba euh, félicité ko décoré ko defal ko loolu ak loolu man nag xëy na du ma nitam mais nag dama am ay droit samay doom amuñu droit di souffrir ci situation bu mel nii sama famille amuñu droit di souffrir ci situation bu mel nii te dama koy demander lépp loo xam ne sama droit la na ma ko delloo bépp nitam boo xam ne laale woon nga ci na ma delloo ci samay droit man ci sama bopp. voilà Alassane Hann Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jërëjëf jërëjëf madame Ndeye Comba. voilà may fàttali expert aéronautique nga jaajëf. jërëjëf.